asalaamaaleykum mbokk téléspectateur yi ñuy seetaan ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal si taamu bi ngeen taamu seen chaîne Equivox TV ñu ngi fi nga xamante ni mooy palais de justice bu Dakar fi procès Abdou Karim Gueye war a am tey ji nga xamante ni mooy lundi 3 mars 2019 Abdou Karim Gueye nag dañ ko arrêté fi nga xamante ni mooy place de l'indépendance le 25 février 2019 ñu ngi koy toppee li nga xamante ni mooy incitation à la révolte ak injure à l'endroit du premier ministre ñi ngi fi nga xamante ne mooy palais de la justice fi procès bi war a xewee fas yéene leen na toppal xibaar bi. citoyen bu nekk am nga droit taxaw euh, fi nga war a taxaw si endroit public surtout wax li nga bëgg a wax te manqué woo kenn de respect te Karim loolu la def wax na li mu bëgg a wax te manqué wul Karim respect waxul sax la li mu bëgg wax parce que dañ ko dagg dañ ko dagg si biir arrestation bi ñëpp gis nañ vidéo bi ñu ngi koy menacé parce que waaye mi ngi naan ko dama lay toroxal un policier respectable. warul di menacer citoyen naan ko dama lay toroxal ko en fait parce que protéger et servir mooy seen leitmotiv maanaam da nga war a respecter citoyen respecter citoyen bi protéger ko mais bu fekkee yow da ngay ñëw di wax ak citoyen bi même boo koy jàpp sax te deful délit yaa ngi koy jàpp parce que mi ngi wax wala mi ngi taxaw foo xam ne bëggoo mu taxaw fa mais wax ko dans le respect mais bul ñëw naan ko dama la balaa ma lay toroxal loolu menace la quoi fait. bon man leen su ma amee leen li may yokk c'est par rapport ak euh, contribution la par rapport ak li muy wax si wàllu. Euh, homme de tenue yi quoi que ñu xam ñu xam ne ñoom dañ leen fi teg suñu kaaraange mais pas du ñu xërtal loolu su amee si rek c'est parce que mi ngi commencé doy waar tu vois donc damay jox exemple souvent ma ne boo demee Pays de Galles soo amee problème da ngay da ngay dox ni si mbedd bi nga gis benn policier nga woo ko mu ñëw nga toog nga expliquer sa problème mu mu wax la la ci wax la si li nga xamante ne xalaat na ne loolu mooy solution bi ba pare jox la numéro am ne la boo jaaxlee tu vois da ngay sax mun nga sax génn baale ji boo yorutul boo yorulee dërëm da ngay arrêté auto police nga dugg ci mu yóbbu la nga ñibbi donc police dañ leen teg ñu sàmm nit ñi mais pas pour ñëw di menacer bu dee homme de tenue yi ñun civilisé ci ci la ñuy dëkkee quoi donc c'est des choses yoo xamante ne c'est à souligner wax jooju loolu la ñu waroon gën a naqarlu ñu ñëpp ko dama lay toroxal la ñuy wax tiimee doomu aadama un citoyen dama lay toroxal malheureusement nag force de l'ordre yi nga xam ne ni ñoom ñoo fi nekk war a maintenir war a nekk ay régulateur ñoom tamit malheureusement sont des complices parce que lu leen Macky Sall def loo ñu def ko même bu fekkee ni sax li leen Macky Sall wax nekkul ci yoon mais dañ koy def loolu du yoon pourquoi pas faute de l'ordre yi waruñ di désobéir les ordres su fekkee ni teguwul ci yoon dañ ko war a désobéir mais ñoom dañuy obéir rek lu Macky wax rek ñu obéir loolu mooy taal réew mi nag malheureusement. dañ koy toppee appel à l'insurrection loolu ki nga xam ne moom moo mérité woon ñu toppee ko appel à l'insurrection mooy Boun Abdallah Dionne mooy maître Moussa Diop wala Moustapha Cissé Lo parce que Boun Abdallah Dionne dañuy voté ba 23h mu génn ni gagné nañ 57 pour cent alors que dépouillement yi sax jeexagul PV yi ñëwagul loolu kay mooy appel à l' insurrection loolu kay mooy wax ni yéen suñu opposants yi léegi gagné nañ jóg leen taal la taal dëkk bi loolu mooy appel à l' insurrection kooku lañu ñu war a jàpp tëj wala ki ñu war a tëj mooy maître Moussa Diop mi nga xam ne nii Serigne Touba li mu liggéeyal àdduna bi mu am autoroute bu ñu tuddee autoroute Ila Touba ñu gagné ko foofu mu ni dafay dem xolli ji Ila Touba bi def ko Ila Fouta kooku moo def appel l' insurrection kooku la murid di waroon na jóg dal ci kawam parce que moom moo leen woo ci ci fitna ko au fait dañu gaa yi dañuy jaawale nu mu demee te maître Moussa Diop li mu wax presque loolu mooy gis-gisu Macky Sall Macky Sall li mu gis mooy par parparloo ci réew mi